to Mame Abu Abou Demba Bayou ma aje aram boy ya ya ya, ah tay ji nak ñu ngi fi ci Kandi jeunesse fekk fi mbacke Events ak wa groupe sop sa jëkër ñi wajal nak événement bu mag événement bu reuy muy gumbe gumbe ah ku ko dégg nag sa xel day dem ci suñu bokk lébu yi muy événement culturel boo xam ne ah, dafa bokk ci cosaanu senegal ñu fas yéene ko nag dekkal fii ci commune bu Mbambilor ci dëkk bii di Mbambilor ah ci bayaalu këri kaw di wax bokki Sénégal ah Mbacke Events ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa groupe sopp sa jëkkër di ñoo xam ne ay jigéenu yu gëm seen bopp lan yu mandu yoo xam ne liggéey rek moo leen ñor ah xool ni ñuy toppatoo njaboot gi tey jii nag lii bu taxawee ah ñoom dañ ci am part de responsabilité bu rëy kon ñuy wax bokki Sénégal événement bi le 6 la à partir de 15h30 fii ci bayaalu këri kaw waaye nag waxtaan wi dama koy ubbee ci ki nga xam ne mooy suñu yaay mooy suñu lépp di yaanday ngoone mbeng ah mu def benn lancement waxtaan ak population bi ngir événement bi nag waajtaay bi ñu ngi ci ah soññ leen ngir ñu mën a ñëw ci gumbe bi la 6 incha allah kon dañuy jox suñu yaay Ndey Ngóone micro bi moom mu def lancement. maaleykum mbokki Mbambilor mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk trom ak santam di leen xamal na leen gumbe gi nga xam ne moom la xale yi formé xale yi soppa seen jëkkër. li ñu def nii dañ koy defar lu ñoon ñoo mag ñi ndax ñun mag ñi ñoo ko doon def ba léegi ñu bàyyi sañuy doom sañuy doom jël ko ak sañuy goro programme bii nag di programme bu rëy ñu si oo mboolam ku di lébu si tundu jandeer ñu lay oo di oo monsieur la Ndiagne Diop Ndiagne Diop lañ tudde bés bi te Ndiagne yow xam nga ne yow yow suukar nga laax laax boo demul rek kenn du ko lekk te njañ yow lañu yaakaar njañ yaa nekk fi yaa fi nekk njañ ñëpp xam nañ la si sa jàppale nit dañoo bëgg nga jàppal sañu xale yi ndax xale yi nag maay seen yaay boo gisee ñaar yi ma ñëwee yëpp ñu andi ma fii man maay seen yaay man la ñuy diisoon man la ñuy waxal boon boog damaa bëgg njañ maa ngi jàkkaaroo yow ma bëgg nga jàppale sama xale yi xale yi xale yu takku lañu xale yu gëm seen bopp Mbàkke Njaay mi nga xam ne xale la nag sama doom la sama doomi boppa la Mbacke moom xale la boo xam ne rek dañ koy ñaanal yàlla rek li mu sémba yàlla na ko yàlla suñu borom bi yeggali ñuy oo nag ñëpp di nuyu Assis Gueye duy oo Ibrahima fay yéen ñëpp ñu ngi leen di oo si bés bi nga xam ne bésab lébu la bésab lébu na buñ ko waxee bàyyi ñu benn lébu ñëpp la ñu oo ñu ngi oo Massi Mbambilor yëpp ñu ngi oo groupement yëpp ñu ngi oo ñëpp di nga oo Ndumbe Diène Ndumbe ñu lay oo xale yi say xale lañu si fi nga dëkk si dëkk bi guney dëkk si dëkk bi te xale yi gëm nañ seen bopp óolu nañ seen bopp njañ xale yi nga nekkal ni ñii nga xam ne ñoo la tudde gumba gi ñu gëm seen boppa lañ ñu yaakaar seen bopp lañu te du ñu wax dara loolu xam ne dañuy dellu ginnaaw njañ maa ngi lay oo si bés bu nag bés bi nag loo mën nanga si def bés bi yaakaar nañ la si bés bi yaakaar nañ sa nga jàppale ñu si si lépp nag nanga si jàppale si lépp ndax ay xale jigéen rek lañu seen jëkkër lañ nekkal te dañoo bëgg takk seen diggali nag di daan seen doole rek bëgg nañ na nga jàppale ñu si loo man am njañ na nga def njañ loo man defal njañ loo man defal waaw. asalaamaaleykum ndey Fatou Niane mooy nuyoo di nuyu yéen fi nekk ñëpp di nuyu waa Bambilor di nuyu ñëpp ñu kenn ku lim da ngay juum di wax ne liñ fi waxoon keroog rek dafa li lim gën a jege si sax moo taxaat ñu waat télé pour waxaat ni ma lépp waxoon nañ ko keroog ba pare. waaye ñun daal li mu fi waxoon keroog moo fi nekk suñu programme lañ am te Ndiagne Diop yow lañ ci yaakaar yaakaaruñ kenn ku dul yow te buñ sañoon nak nga jappalé ñu suñ bis bi mëna am li nga xamni ne lañ ci bëgg di ñaanal ñëpp nag tamit di woo ñepp ku ñëw tamit baxna na mais ñan job daal yow mom yow lañ gëna yaakar ci bis te yow lañ ko tuddé buñ sañoon tamit nga ñëw jappalé ñu dolel ñu ndax fi mom kenn mënu rek comme lañ ñu waxoon keroog dañuy sabablu rek yalla nak moy àggale lépp te yalla nañu yalla dimbali tamit nga dimbali ñu ba seen bis bi liñ ci am lépp liñ ci bëgg lépp ñu am ko loolu la ñaan yalla di ñaanal Mbacke Ndiaye mom Mbàkke moom amuñu fayam rek comme la ñu waxoon keroog moom la ñu waxaat kenn fayam ndax jiite ay xale dafa metti di nga dégg lu naqari di nga dégg lu ne mais teewul dafa sëgg rek jàll Mbàkke doo waxee sax ba sa baat xaw a jóg sax moom mooy rikkiliwaat indiwaat moom moom mooy mag mais moom dafa mel ne moom mooy xale te loolu ku gore ak koo xam ne mën naa muñal jigéen rek moo koy def mais boo mënta muñal jigéen yu bari doo ko def ci dugg sax moom dañ koy ñaanal lim lim bëgg moo xam yàlla naka yàlla defal te di gërëm suñu waa maas di gërëm ñëpp di gërëm daay su tamit kenn du moom moy suñu mère ma daanaka waye dafa melni ni man la def mère bi mom lo xamne day faatu momit yalla nako yalla defal li bëgg rek wala ñu ñaan yalla te Ndiagne ñing lay wo nga ñëw japp ñu suñu bis ñun suñu bis yow lañ ci yaakar te bu sañu tamit nga japp lañu daal ñun loolu lañ bëgg ndax ñun amuñu dara dañuy jëm rek te lepp ci yow lañ ko yaakaré nak bu sañu na nga ñëw japp lañu bu baax te loolu lañ bëgg di nuyu ñepp di sant ñepp di gëreem ñepp auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen nuyu yeen ñepp di leen sant di leen jox seen wàccuwaay bu baax waaw di nuy waa zone 7 TV ñun nag dañoo nekk fii ci Bambilor nekk ay xale yu jigéen def organiser suñu maas te maas gi ñoo ngi ko tuddee maas sopp sa jëkkër bëgg suñuy jëkkër yërëm leen te bëgg leen a jàppale moo tax ñu organiser maas gi tey bëgg nag organiser benn gumbe ñu bokk ko ak Mbacke Events te gumbe gi ñuy organise ni bëgg nañ ci réussite ndax suñuy yaay ñoo fi nekkoon suñuy bàjjan suñuy mag di def lii tey te gumbe gëj na am torop sax daana fi am mu neex torop mais gëj na am comme que gëj na am nag dañoo bëgg suqaliwaat cosaanu Bambilor bëgg suqaliwaat cosaanu lébu ñu xam lébu doole bi mu amoon ci Senegal, doole bi mu amoon ci Bambilor ñu bëgg koo soxaliwaat tegaat ka ci palaasam te ñun nag yaakaar ñu ci kenn ku dul yàlla ak ngeñ Diop ngeñ Diop da ngay lébu di doomu dëkk bi di doomu zone 7 di doomu Senegal, man nan ni tey jii ba bitim réew ñëpp xam nañ ngeñ Diop koo wax mu ne ngeñ Diop te ñun yaakaaruñu ku dul ngeñ suñu maas gi tey buñ ko jëlee di tëgg programme bii jox ko ngeen jóg ne tuddee ñu ko kenn ku dul ngeen jóg kon xam nga ni ngeen jóg yaa ngi def social ci dëkk bi yaa ngi def lu baax ci dëkk bi te ngay lebu nag pire sax ñu tudde la suñu gumbe gi bëgg nga ñëw rek jàppale ñu ngeen jóg monsieur le maire ñu ngi lay ñu ngi lay woo suñu bis bi nga ñëw jàppale ñu rek ci loo am sa kàttan ak sa man-man lépp ak képp koo àndal nga ñëw jàppale suñu bis bii ñu ngi woo Numba Diène mooy suñu marraine ci bis bi ñu ngi koy woo moom mi nga xam ne yàqalul dara Ngagne jóg mu ngi koy jàppale ci lépp ci biir ak ci biti fu nga Diop nekk mu ne fa fu nga Diop nekkul mu ne fa kon ñoo ngi koy woo ci bis bi di woo ñëpp ñi mu àndal ñëpp ñu ngi leen woo ci bis di woo maas yi si dëkk bi yëpp ñuy teg nag trophée ci bis bi bëgg maas yëpp ñëw maas gu ñëw rek nga ñëw def sa prestation te même bu tegul trophée sax match yi war a ñëw ndax lépp bambiloor la te bambiloor moo tax ñuy def lii fenn taxul ñu koy def bambiloor moo tax ñu koy def bëgg bambiloor gépp ñëw jàppale ñu suñu bis bii mu réussite ak jàmm ak salaam ndax bis bii bu amee réussite mel na ni lébu yëpp ñoo am réussite mel na ni bambiloor gépp moo am réussite kon bëgg na ñëpp ñoo jàpp ci bis bi monsieur le maire kaay jàppale say sët kaay jàppale say doom kaay jàppale ñii xale yii nga xam ne gëmuñu dara dara lu dul liggéey ay xalé yu tuuti yor seeni jëkkër yor seeni doom bëgguñu lu dul liggéey bëgguñu daray tiaxaan bëgguñu daray góor bëgg rek ku ñu jàppale ñëwal nga jàppale say doom ñëwul nga jàppale say jigéen ñëwul nga jàppale say sët yow rek lan yaakaar si bis bi bëgg nga jàppale ñu ñu ngi lay sant di la gërëm. maaleykum mbokku téléspectateur zone 7 TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk si turam ak santam ah nag di amaat mbégte contentement lool di jàkkaarloo yéen. di leen annoncé li nga xam ne ni moom la ñu dëgmal di ko waxee rek ci ndigalu euh, le grand saltigué du département de Rufisque El Hadji Maodo Malick Ngom ak ci CNL bi yëpp ñoo ñu jox ndigal ñu am sañ suñu euh, organiser li nga xam ne ni moom mooy gumbe gumbe nag euh, fii ci commune Mbambilor wala fii ci Mbambilor suñ ne organiser nañ ko rek jàpp nañ ne war naa mën a nekk ndax nag dañuy dëkku lébu aussi nag ñu nekk ay xale ah jiite benn groupe bu tuddee ko Mbacke Events yaa dogal ñu lëkkaloo suñuy jigéen ñu tuddee seen bopp sopp sa jëkkër suñu première édition nag moo nekk nii pour organiser gumbe gumbe gi nag dañ ciy woote nag képp koo xam ne rek yow yaa ngi dégg suñu kàddu ñu ngi la ciy oo ah, di leen ci invité incha allah ci kàddu yàlla muy dimanche le 6 juin bii di ñëw gumbe gi nag dañ ko tuddee l'honorable député maire monsieur Ndiagne Diop moom la ñu tuddee gumbe gi di ko ci oo képp koo xam ne ne rek yaa ngi ànd ak monsieur maire ñu ngi leen di oo dimanche incha allah le 6 nem njoxoon nañu sax benn kii waaye nag ñor gëm ñu ñor moo tax ñuy fàttaliwaat nit ñi rek den xamal ne leen carrément seen i doom ak seen i set ñii seen i jarbaat ñoo am sañ sañu organiser waat programme bi leen ci o ci kàttanu yàlla yaakaar leen nag ngeen teewal leen jàppale leen aussi si programme pour mu réussir incha allah dimanche lay doon euh, le 6 à partir de 15 heures et demi fii ci passé public bu Bambilor di ci oo ñëpp nag képp koo xam ne dégg nga suñu kàddu rek ak bépp responsable la baa ngi dégg ngeen li suñu yaay Ndeye Ngone wax kàddu yi mu adressé monsieur maire nga xam ne moom mii euh, gayndey fàq dëkk la te jigéen la joo xam ne jigéen ju mën góor la ndax du tricher lu muy def lu ne da ciy dëggu kon nag bu lancé message boobu woo monsieur le maire ah daf ko tibbe ci xolam kon monsieur le maire war ngaa wuy si ci appel bi nga xam ne suñu yaay moom la woote ki nga xam ni moom mooy présidente sopp sa jëkkër ah Ndeye Fatou dégg ngeen li wax Ndeye Awa chargé wu organisation bi ah lancé na ay message ak ki nga xamné mom moy mooy euh, Events wax ji mu wax soñat waaye Ousseynou Gueye mu ngi ni tew bok ci comité directeur bi ci comité d'organisation bi ak Cheikh Mbacke Assou Mbaye eh, ñom da leen sat di leen gëreum waaye nak monsieur le maire ah bëss bi du chance mérite la ndax bëss bi sa bëss la yow yaa ko moom da nga ko fee liggéey Mbambilor tey jii daagul am na marché VIP yaa ko fi def foyer bi ñu ngi koy defar foyer VIP yaa ko fi def te ci dëkk yëpp nga ko def terrain de football yi terrain de basket yi poste de santé bi sept poste de santé bu ci nekk ñun rek ñoo fi am cinq ambulance lépp ci sa réalisation la kon monsieur le maire gàcce ngalaama bës bi sa bés la say doom say jarbat nak ñoo organiser ñoo woote ne tuddewuñ ko kenn ku dul yow ah bëgg nañ nga ñëw wuy ci événement bi événement bi sa événement la waaye événement bi nak dañ ci wo bépp responsable politique bo xamné mu ngi and ak l'honorable député maire kin si ñëk soñ moy la présidente des jeunes dames di doomu Mbambilor di battante eh, di ku deggu muy Ndumbe Diène ñi ngi lay wo avec toutes les jeunes dames de la commune de Bambilor di woo les responsables politiques ñu ngi leen ciy woo di ci woo Libaas Ba bu gorom 2 ñu ngi ko ci woo Papa Ndiaye ñu ngi lay woo di woo Assane Bey di woo ki nga xam ni moom mooy Pape Sow les responsables de Bambilor bay Tabara Mbàcc ñu ngi lay woo di woo Baye Waly di woo Waly Ndaw ah di woo nag sunu ndijaay sunu xarit Zal Diop ñu ngi ko ciy woo ah Ndey Ndiaye Kone bëgg nañ nga ñëw ndax bés bi nag bésu jigéen ñi la waye nak li ci gëna a neex moy ah Mbambilor day bo fi duggé wax ci ciosan ak aada wala ci walu culture di nga tud nday Ngom Mbambilor domam Adja Khoudia Ngom moom mooy way programme bi ah kan mo koy teug dodu ndjay Rose junior bu Mbambilor ndaw lu reuy kon nak bokki senegal événement baa ngi Mbacke Events and ak wa groupe sopp sa jëkkër gis ngeen leen niñ taaroo nii macha bëgg seeni ñoo kon nak le 6 juin à partir de 15 h 30 la def mise en place bi à ah, ci benn conférence boo xam ne sunu saltige Ibrahima Faye moo ñuy waxtaanal ci wàllu culture lébu cosaanu lébu buñ ca paree nag à 17h dinañ def nag li nga xam ni moom mooy la chorégraphie jigéen ñi dinañ ñëw ak seeni i feem ak seeni bagage ak seeni i taxawaay ñu commencé programme bi ah prestation artiste invité yi am na ay artistes yu ñu invité yu bari yoo xam ne ah dinañ ñëw ci programme bi waaye bu buñ ca paree nag monsieur le maire yow yaay tëj ndax yow la ñuy jox kàddu gi nga wax soo waxee ba pare nag trophée bi raaya bi yow yaa koy jox ki nga xam ne moom lañ taamu fas yéene koo décorer ci bés boobu kon événement baa ngi noonu sa événement la bokki Sénégal di leen jox tig daje ba le 6 ci bayaalu këri kaw à partir de 15h30 jërë ngeen jëf. yaay nuy sa maam la bandi ngoone sanu la aji aram nuy yaay jigéen ju man góor yaayu Muhammad Asan ak Muhammad Abdallah xalaat bàyyi biiram ndoo yi mënoo ñaaw. ni dundal dundal dundal ak yaa aram ndoo yi dundal waay. yaa jomba ñaaw fu la ndax maa ngi jaarale. Amadou Assane ndoo mooy sa baay. yaa xëri jóob ngoon mbeng yaayi jàll. événement baa ngi noonu sa événement la bokki Sénégal di leen jox tig daje ba le 6 ci bayalu këri kaw à partir de 15h30 jërë ngeen jëf